dara indiwuñu fii lu moy lii baro suñu président la Gambia ñoo ko wooteel time has come for change and the Gambian people have decided for change and it has happened loolu moo ñu fi indi de pour ñu inaugurer ko suñu président la te we are taking him all over the world aduna bi yëpp dañu war a xam ne Barrow mooy Gambia ni président président ni Gambia he's our president